ci démb nag ba tey ci la ñu dugg ci euh, weer bu bees euh, di weeru euh, rajab weer la boo xam ne ni baax na xale yi xam njëriñ yi nga xam ni ñoo ci ne mbootu mbóotu weer bi waa maa ngi lay fay Baye Cheikh nuyu ñu bokkal plateau bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan à travers la télévision Futur Média di wax ne euh, wax nga loo xamante ni tey moom la ñu bëgg a waxtaane mu nekk loo xamante ni lu am solo la muy weeru rajab weeru rajab nag boo ko déggee rajab moom ku ne xam na ne baatu baatu baatu arab la moom la olof di wax baraxlu su ma juumul mu nekk weer woo xamante ni weer wu màgg la mm-hmm. mais nekk si ñeenti weer yi nga xamante ni suñu borom subhaanahu wa def leen ormal ndax boo xoolee si ci alquranul karim ni nga xamante ni euh, calendrier grégorien muy calendrier tubaab bi ni mu nekkee fukki weer ak ñaar noonu la weeru euh, atum jullit yi itam nekkee fukki weer ak ñaar ah, te loolu alquran moom moo ko wax muy douze mois boo demee si alquran yàlla mu ngi wax naan inna iddata shuhuri indallahi ithna achara shahran mm-hmm. fi kitaabillahi yawma xalaqa as-samawati wal ard minha arbaatun xurum dalika diinul qayyum fala tazlamu fihi fihinna anfusakum mm-hmm. ba mu jeex maanaam li yàlla di wax foofu nee ne weer yi fukk la ak ñaar ni ngeen ko bàyyi xel fukki weer ak ñaar yooyu nag bi si njëkk moom mooy muharram safar rabiul awal rabiul thani jumaada al ula jumaada al axira rajab chaaban ramadan shawal dul qirda dul hijja mu nekk fukki weer ak ñaar yoo xamante ni yàlla daf si génne ñeent ne yii dafa nekk weer yoo xamante ni yu tedd la weer yoo xamante ni yu am barke la weer yoo xamante ni itam yu ñu ormal la mm. boo ko déggee yàlla daf si wax na weer yooyu bu si kenn tooñ boppam bokk na si baraxlu bi ñuy waxtaanee muy rajab boo déggee yàlla di la wax na bu si kenn tooñ boppam maanaam tey jii nii ki nga xamante ni dafa def bàkkaar si beneen weer bu bokk par exemple bi ñuy waxtaanee tey muy baraxlu bàkkaar bi muy def si baraxlu mooy gën a diis que ba mu def si beneen weer ndax orma boo xamante ni suñu borom subhanahu wa def na ko boo si tooñee nit itam tooñ googu degré ba muy am mooy gën a diis que boo si tooñee keneen si beneen weer. Mm. bu bokkul ak ñeenti weer yi nga xamante ni moom na yàlla tudd si alquranul karim. muy muharram weeru tamxarit. zul xijja weer bi nga xamante ni si la ñuy aje. zul qirda weer bi nga xamante ni moo topp si weeru koor ak bi nga xamante ni moom la nekk tey muy. Euh, weeru rajab mm-hmm. donc ñetti weer yi la dañu tegloo parce que tey jii boo jógee si. weeru koor yaa ngi dal si li topp si koor muy dul xeeda boo si jógee yaa ngi jóge si jëm si aj boo si jógee yaa ngi jëm si li nga xamante moom moo di tam xarit hmm. bii rek moom moo si départagé wu ak ak ak ñoom weer bi nag yàlla subhaanahu wa taala nee ne ku la si tooñ boo ko mënee jéggal jéggal ko weer bi ñu nekk te yàlla ah. rek tax <laughs> waaw waaw man ñoo xam ne baalu ma leen de. muy benn. ah obligé. baal leen hmm, rek waaw xam nga yàlla du la fay waaw xam nga lu tax nga war a ba. xam nga lan moo tax ñu war a baale sax si ñii duñu tooñ. ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa bëgg. baal leen te des ak yàlla waaw baal leen te des ak yàlla. yàlla moom moo ko wax si alquran. Hmm. nee na nit bu la tooñee. Hmm. jéggal ko. ngir sama jëmm waxoon naa ko fi dinaa ko répété sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha nekkoon soxna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ka ko la ma ko tuumaaloon magam la si waxin dont la bàyyam juru ko mais sa kër ga la juddoo fa la yaroo fa la màggee fa lañ ko takkale soxna am sëy sa fa mm. te tuuma lañ ko tegoon muy tuumay def na ko sa dul noonu di sofaan keroog ka ko tegoon sa kër ga la juddoo yaroo fa màggee ko màggee fa mais keroog bi way juram meree Aboubacar radiallahu anhu ne ko comme yaa wax wax ji dama lay génnee kër gi yàlla dafa wàccee aaya mm. ne ko jéggal ko te nga jéllale mm. na ngeen di jéggale tey jéllale xanaa bëggoo leen yàlla jéggal leen ëllëg mel ni dafa bokk si condition yi tax yàlla di ñu jéggal te ñu ñëpp ay def ko ti rëcc rëcc lañ yàlla ñuy jéggalante suñu biir bu ñuy déggalante waaw yàlla bindul ku mag yàlla bindul ku mag ñëpp yàlla wax na ko ci alquran nee na bu doon ku def rek ma jàpp la kon duma bàyyi dara luy dëkkat luy dukkat ci kaw suuf ah. kon ci kaw lool rek moo tax ñuy jéggalante hmm. eh, ñu rawatina ci weer wi nga xamante ni moom la ñu nekk hmm. léegi nag boo boo wax naa la sànq li tax ñu war ci jéggalante hmm. wax naa la itam li nga xamante ni moom moo tax ñu war ci moytu na ku tooñ parce que weer wi moo ni toll ngir màggal weer wi ngir barkeer weer wi waaye itam ngir jox orma li nga xamante ni moom moo di moom moo di weer wi mu nekk weer woo xamante ni lii ci am ci ay xew-xew bari na bi si jiitu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si la demoon rañaani muy weeru rajab muy weeru rajab te li ma si yokkaat tuuti rek mooy suratu tawba si la aaya bi ma jàng léegi ñaan gi mooy lan pour euh, sofi mi xamul ñaanu riñaan gi riñaan bi waaw riñaan bi mooy xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa euh, dafa demoon seeti suñu borom subhanahu wa maanaam yàlla daf ko mayoon audience mhm. boo demee yàlla mu ngi koy wax mhm. euh, si suuratul isra subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid al aqsa alladi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir yàlla dafa oowoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir waxtaan ak moom boo demee si suuratu najmi muy saar bi ñu tuddee bidéew si la yàlla détaillé audience bi keroog naka la demee woon mhm. moo tax ñu ne am na yonent am na ñu ne yonent bi sallallahu alayhi dem na ba gis yàlla suñu borom subhanahu wa taala te loolu yomb nay gëm ndax yàlla ma ko fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa yàlla ne ne li doxoon digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mel ni maanaam boo jëlee flèche arc bi buum gi ak yat bi ni muy li arc bi ak buum gi ni ñuy jegeñante yàlla nee ne dem nañ ba lu toll noonu wala sax lu ko gën a jege tey si waxin si waxin dina am ñu koy déggee ne neen si waxin yàlla bu amoon jëmm dañ naan est-ce que okalaatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam recevoir na ko mm. ñu waxtaan keroog yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla war na ko safara mm. nu mu mel waaye itam war na ko àjjana nu mu mel keroog bi muy ñëw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la àndaale woon li nga xamante ni moom moo di julli ñu joxoon ko cinquante mu koy wàññil yonent yàlla Moussa alayhi salaam dik ko wàññiloo di ko wàññiloo ba mu wàññi ko ba mu mat juróom mais ma ñëw mais teewul yàlla dana ko juróom yooyu ku ko julli dama lay bindal yoolu ku julli cinquante julli parce que cinquante laa la njëkkoon jox kon te comme man sama wax du deñ kon ku julli juróom yooyu fonk ko di ko joxe si waxtu dama koy bindal yoolu koo xamante ni day fa julli juróom fukki julli loolu moom mooy eh, riñaan si gàttal mooy audience bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ak yàlla subhanahu wa taala nga xam ne keroog jóge na makkatal mukarrama te kaaba ga lañ ko la fa la jaare dem Jérusalem jiite fa yonante yi door a dem si borom bi subhanahu wa taala ñëwaat makkatal mukarram mm. donc ne nañ si weer bi la amoon euh, mbir moomu mm. waaye weer bi itam si lu ñu bëri xamul si la ñu soppee penku bi ndax ku ne xam na ne lislaam bu njëkkoon penku bi fële la woon Jérusalem di baytul maqdis ba nga xam ne yahud yi dañ si doon ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow da nga nekk ne yàlla moo la yónni xanaa loolu looloo waral ay bàkk ak màkka waaw ci loolu yooyu noonu <laughs> damay laajte rek waaw xam nga bàkke loolu màkka bi moo tax Baye Cheikh eh. yow il faut nga dem màkka mm-hmm. ala kulli waaw loolu mënul ñàkk ala kulli parce que xam nga jàkkaam jooju ah. bay eh, eh, masjidul qiblatayni ñaari ñaari xibla yi ñaari penk yi mm-hmm. fokk fokk suñu waaji daal décidé na ko tay mi ngi waxu màkka ajul sax. Ah, euh, balaa aj gi ma umra ji nii nii nii. da ngay aj c'est le moment où jamais ma umra ji. Hmm. te hmm. yàlla dogal nañu bi ñu xëyee ba tey. waaw alaaji Baye Cissé ngi seetaan yeewu leen bi. te ah, man ay yëfi ay yëfi màkk ak yooyu man président Baye Cissé moo ci doy. moo la ci doy waaw dama doon ah, boofaale rek. di waale parenthèse doon rek. ko <laughs> pour demaale màkk donc ñu tëjaat ko rek àggali <laughs> ca xibla ja. yàlla bu mu nelaw. amiin nelaw rek dana baax bu nelawee danañ ko jottali. <laughs> yàlla yàlla ko yàlla mottali rek. amiin amiin amiin amiin. léegi nga xam ne si lañ soppee woon penku bi. Eh. ndax yéen sallallahu alayhi wasallam baytul maqdis la doon jublu. Hmm. yahud yi muy juif yi mu dëkkaloon Médine di ko ñaawal ne ko yow nee nga yàlla moo la yónni. Hmm. te andi nga téere bu bees muy alquranul karim waa ngar la kon loo tax wutul la wutul la penku bu bees te nga bàyyi fa la ñu nga xam ne ñun ñoo ko moom. Hmm. loolu nag metti woon si moom lool lool mais comme moom sañul woon laaj yàlla dara. lu dul yàlla daf koy digal rek mu def benn bés nag mu nekk di julli tisbaar si masjidul qiblatayni bi nga wax muy jàkkay ñaari penk yi lu tax ñu tuddee ko jàkkay ñaari penk yi hmm. Rasul sallallahu dafa julli ba pare waxtu tisbaar la woon hmm. ma may la loolu waxtu tisbaar la doon julli hmm. bi mu toogee si ñaareelu ràkk bi bay taaya jibril alayhi salaam ñëw ndax jamono boobu Rasul sallallahu alayhi saa yu kiiwee rek day xool asamaan ngir yàlla jox ko ndigal mu soppi penkoom def ko kaaba ga ndax màkka moo nekk si xolam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yebal jibril alayhi salaam ne ko demal si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko bu jógee si taayaam boobu na ëlbëtëku fi nga xamante nii moom moo di màkkatal mukarrama sa kaaba ga bés ni ki tey foofu mooy nekk penku julliti ba kër balaa yàlla di tukkal àdduna nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam tey jii nii bu fekkonte ne nii la taxew woon doon julli nga xam ne keroog jàppal ne baytul maqdis nii la nekke woon waaye jàppal ne toujours euh, ndeyjooram côté ndeyjoor la mas di tourné masul tourné côté càmmoñ moo tax keroog ba mu ju jógee si taaya bi si deuxième euh, rakk ba jóg ne daal de darees ëlbataku côté ndeyjooram yeneen ñaari rakka yi mu def ko fi nga xamante ni moom moo di makkatal mukarram loolu moom moo tax ñu tuddee ko masjidul qiblatayni hmm. ndax jàkka joo xam ne keroog ñaari penku yëpp hmm. jiite na fa te teewul bi mu paree yàlla subhanahu wa taala dafa validé julli ga mm-hmm. fa la nuwalliyannaka qiblatan tardaha qad nara taqalluba wajhika fi sama mm-hmm. ba aaya ba jeex yàlla ne ko gis naa ni ngay xoole kaw asamaan ngir ma soppil la sa penku mm-hmm. léegi nag penku bi dinaa ko soppi def ko yow fa nga ko bëgge qiblatan tardaha penku boo xamante ni moo dee si sa xol muy makkatal mukarram fa walli wajhaka shatral masjidil haram bés ni ki tey del ëlbatiku yow ak ñi ngay jiite ak jullit yépp di jublu fi nga xamante ni moom moo di kaaba ga muy makkatal mukarrama kon xaw-xaw boobu si weeru rajab bii la amoon te loolu de kana loo xamante ni itam lu jara xam la rajab nag boo koy tekki dañ naan rek mooy loo xamante ni dafa màgg lu ñuy ormal lu ñuy jox cër lu ñuy wekk weer woowu tey jii nii si la ñu nekk mhm. dinañ si waxtaan si fan yi di ñëw incha allah buñ ko gën a jege mhm. muy kazu rajab mhm. nga xam ne nee nañ yonent sallallahu alayhi si la rañaani woon waaye itam si la ñu yàlla subhanahu wa taala joxoon suñu maam ju baax jooju sëriñ Mouhamadul Fadil Mbàkke radiallahu taala anhu si weeru rajab la la la amoon mu nekk loo xam lu am solo la léegi nag li ñu si diglee bokk na si di def ay naafila yu bari baax na naafila weer yëpp baax na waaye itam di ko si def baax na lu ko waay man jàng al alquran lu si waay man si weeru rajab na ko si def woor si weeru rajab lu si waay man itam na ko si def yooyu yëpp ay ngëneel la yoo xamante ni weer wi daf ko daf ko daf ko daf ko ëmb yooyu itam am na ay xadis yoo xam ne nee nañ rot na si yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko donte la am na ñoo xamante ni dingat nañ ko mais ak lu si mën a am ku ne xam na ne koor moom dafa baax si wàllu wér-gu-yaram waaye itam si diggante jigale bi muy jigale jaam bi ak boroomam subhaanahu wa taala si gàttal daal loolu lañ andi woon tey si li nga xamante moom moo di weeru rajab di baraxlu bi nga xamante ni moom la ñu nekk di nekk ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mhm. lépp loo xamante ni barkeele si rek mhm. yàlla na ko yàlla wàccee si réew mi wasaare ko si xéewal yu ubbeeku saawaan baawaan mhm. incha allah si barke yonante bi sallallahu alayhi wa barke xew xew yi nga xamante itam moom moo si am ndax lu toll ni rañaan du lu ndaw waaw ku ne yaa ngi chance yu yàlla ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa itam loolu itam jar na loo xamante euh, euh, loolu moo waral sax kasu rajab mm-hmm. ren nag ñu jàpp ko le 2 avril euh, di màggal gu mag goo xamee ni Sénégal yëpp a ngi koy préparé mm-hmm. mais pour wax njëriñ li rek mm-hmm. dama gis ay nit di ko illustrer on peut montrer ça ci ni ñuy expliquer weer bi ñu dugg weer bi ci top ak weer bi ci toppaat il paraît Euh, euh, weer bii ñu nekk mhm. boo ko dee misaal euh, mooy weer bi nga xam ne ni ci ngay jiw weer bi ci topp ci ngay arrosé mhm. beneen weer bi ci topp ci ngay récolté muy góob voilà muy góob maanaam ci wàllu ci ci wàllu diine ñaari weer moo des pour ñu dugg ci weeru koor donc mhm. c'est moment ou jamais là kenn ku ne liggéey li nga xam ne ni mën nga koo jiw ci rajab bi ñu ne Euh, arrosé ko ci weer bi ci topp muy Chaban. Mm. Mm. nga euh, bay ko ci weer bi ñuy dugg muy. Shahru euh, Ramadan xam nga ñetti weer yi ñu yi ñu dëgg ma. ñaari weer bi ñu nekk. fete si weer si léegi dootoo ñëw. bu ngeen bëggee jël leen sama photo def ko njël takk. Mhm. <laughs> léegi dootoo ñëw yaa ngi seet xanaa neex na bu ngeen ma njël ba xam. te ngeen maa njël njël na leen ma. <laughs> Eh, amoon na ku ko def ba ñëw di xoole ba ma dem ngeen naan pourtant waxoon nañu njël. ñaari weer yi ñu dëgg ma. <laughs> njël leen ma. ñaari weer yi ñu ah, dëgg ma dafa nekk weer yoo xamante maa ngi ne nettoyé waale man. comme li comme comme ni mu ko expliqué. xam nga tey jii nii. nanaam ba léegi doo fekkee ambiance bi émission baa ngi neex ba de fii mooy récolte bi. <laughs> maa astaghfirullah fii mooy. doo too euh, jiwu mi. xam nga wax naa la sànq. ne la weer la boo xamante ni parti bi neex na de. weer la boo xamante ni <laughs> bëgg nga cee wax. xam nga weer wi. waaw baax na waaw mën naa laa ñaawal. yow sa caabi danaa la ko yéex a jox de. Ah. Ah. nii. mooy caabi xam nga dama doon wax ma ne. comme weer bi ñu nekk xam nga sànq ne naa la. Ah, dañ si digle ñu ciy naafi la. te kon mënul wax naafi la sa xel du dem si weeru koor. Mm-hmm. du dëgg xam nga nee naa la sànq itam dafa baax ñu siy jàng alquranul karim. Mm-hmm. te kenn mënul wax. xanaa nit ñi koy dofuñu ba foog ñu da ngay dem jël ay gere. daal di koy jii comme jii normal. waaw xam nga waxin mbay mi ak ji bi tey mooy julli kii li nga wax ni dafa am solo. voilà donc léegi naafila yi naafila yi ñu war a naafila si weeru koor. Mm. dañ ko war a commencé di ko ah, entraîner léegi. Mm. buñ paree songu Chaabaan maanaam gën ko si yokk ndax fukki fan juróom si Chaabaan sax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa digle ñu koy woor. yu njëkk yi surtout. wala yu mujj yi lu si waay man rek mu war ko loolu dafa am solo. Mm. pour entraîner sa bakkan. Mm. entraîner sa jëmm entraîner physiquement. Mm. sa yaram yëpp nga xam ne am na loo xamante ni mu ngi bëgg a xew. sa diggante ak borom bi subhanahu wa taala donc loolu moom moo tax. ñu ne la weer bii si ngay ji. bii si ñëw nga arrosé. ba sa topp nag si ngay góob. waaw yi sama sama sama rakk yeeg sama morom yi nga ah, xamante ni waaw jeune. Euh, <laughs> sama rakk yi nga xamante ni dañuy enjoy weer bi ba last jour koor koor gi sax dernier jour avant koor gi dañuy génn dem baali dem def yenn weer bi baali ko sax baax ba la ñuy dem commencer préparer pour koor gi lan nga ñuy wax xam nga bijou naan dañuy tëj kii bi tëj saison bi mayu koor gi waaw xam nga koo xam ne sa dara mhm. da ngay mhm. mhm. dafa am loo xam ne mu ngi ñuy dàq ñun ñëpp te danañu jàpp ëllëg bàyyi ko loo xam ne dafa ñuy dàq ëllëg te ñun ñëpp dañuy jàpp muy télé cey bajju bi télé ba mën a télé ñëpp lay jàpp te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon mu ne na nga profité si sa ndaw bi ngay am doole laata ngay dem di télé ah, léegi tey jii nii mënoo nit kenn mënu fi garanti ne tey nit yi dana la fekk ngay ngay nooyu mm, mm, mm. kenn mënul garanti ne plateau bi nga fi wàcc kenn mënul garanti ne nga delluwaat sa kër yàlla rek la wóor waaw yooyu nag buñ ko xamee dafa am loo xamante nii jarul ñu siy sori maanaam damay def li su ma paree def lii su ma paree def li gis nga yàlla yoonam si lu ñuy programme moom programme am la yor bu jotee rek mu wax malaaka mi mu exécuté c'est aussi simple que ça kon ñi nga xam li may njëkk a wax mooy ñi amee bor muy góor muy jigéen surtout suñu mbokku jigéen ñi nañu fay ndax koor gaa ngi ñëw. amul nuñ ko mën a éliminer bor eh, yooyu. du un ma million bor. da nga ne un million. mais am na ñuy jékki-jékki baale prêt yi. waaw mais dafa naan waaw mais xam nga tey jii nii l'islam dafa dafa teg ay ay ay mbir ne la par exemple ki nga xamante ne dafa feebar wala ñoom dafa nangam dafa nangam na def nangam na def nangam na def nangam mhm. nangam moo xam jigéen ji ëmb la mhm. moo xam dafa diabétique la am na ñoo xam ne mënuñu oor mhm. jumla ndax yàlla teg na leen feebar boo xam ne mënuñu woor ñoo ñu am na lu leen l'islam teg compenser koor gi est-ce mooy leel miskin mooy leel bi. maa ngi ko doon def waaw non ñi nga xamante ni mënuñu or laa la wax. jumla li gën nag mooy ku man leel. jamono bi nga nekkee jigéenu wérul. nga leel boo paree nga fay loolu tamit. tuyaaba mooy mooy mooy yokku rek. tuyaaba bu yokku rek. te wax dëgg yàlla dara bàyyiwuñu fi. lu dul njëkkalante si lu baax ak lu yiw ak loo xamante ni ëllëg buñ taxawee suñu kanam borom subhaanahu wa taala mën a am sax voilà oustaz daal lu ñuy ñaan. ëllëg daal a génn rek. Mm. sallallahu alayhi wa sallam na a ñëw rek mbay. <laughs> teel yi baax. non teel ñëw ak yi waaw a génn rek ñu topp ci ginnaaw. wallaay wallaay wallaay ana julli ci jàll jàll leen ana waa Sénégal mais mais mais Moustapha aussi sallallahu alayhi wa sallam mais teel a ñëwam bépp dafa am loo xamante ni itam moom moo koy waral. macha allah gis nga li ñuy wax borom ndekki boo ko njëkkee yeewu. da nga moo tax ñaan mu teel a ñëw. waaw dina teel a a waaw tey jii nii xam nga moom dafa njaboot. Hmm. waaw tey yow tey jii nii am na ñoo xamante ni tey li ngay njaboot njaboot njaboot macha allah buñ taxawu léegi ni sa kanam am na ñu mel. nga am noo leen ne leen taxawe leen ne leen. ba ma pare si ñii. ndax doom tamit wala euh, surga bekket. day topp ndigal. ñu ne ay bekket yi yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam. waaw yal nañu yàlla defal jàmm daal ak sutura. te may ñu li nga xamante ni moom la ñu dëgmal. ñu yegg si ak jàmm yàlla mottali mébét yëpp si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënul woon ñàkk mu ngi noonu voilà mu ngoog jërëjëf sekk ñu ngi lay gërëm